téeméeri kilomètres te président Macky Sall lancé woon ko ñu war ko def ci ñeent fukki weer ak juróom tey jii gis nañ ni chantier bi daanaka genn wàll bi pare na mënoon na sax gën a avancé bu nekkoon difficulté yi nga xam ni euh, société bi wax nañu ko fii léegi. tey jii li ñu manqué mooy ciment am na ñetti cimenterie yu mag yoo xam ne ñu ngi ni di investir cimenterie yooyu aussi dañuy jaay bitim réew il faut que ñu waxtaan ak ñoom. ndax jaay bitim réew baax na mais il faut que ñu ñu toog ak cimentier yi trouver solution par rapport ak chantier yi nga xam ne am nañ ko ci réew mi te population yàkkamti ko. kon ciment am na ci réew mi basalte aussi am na ci réew mi joxe nañ ay carrières yu bari. foog ñu xool ko acteurs yëpp ñu waxtaan ak ñoom. dinaa woo cimentier yi ni ma ko waxee léegi mais aussi dinaa gisee ak ministère de mines ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor basalte bi xeer yi ñu xool un nan la ñu nan la marché bi di doxee. buñ ko xamee rek mën nañu def ay priorité fexe ba nga xam li nga xam ne moom la population yi soxla lu gaaw comme fii dem beeg dikk bi ndax bi ñu ñëw gis ngeen ni mu xatee ñu mën koo toppatoo.